ici. acca jërë ngeen jëf euh, jërëjëf Abdoulaye Diop Yacine Pouy jërë ngeen jëf baal leen maax baal naa leen nañu yàlla boole jéggal di nuyu internet yeeg auditeurs yi di leen euh, baalu àq bu baax di leen ñaanal weeru kooru jàmm di ko ñaanal sama bopp di ko ñaanal euh, collègue yi nga xam ni ñoom laay liggéeyal di ko ñaanal Sénégal gépp nag fu waay nekk rek yàlla yàlla may la kooruk jàmm kooru xéwal ak koor goo xam ni Abdoulaye Diop di dégg lu ma neex wax ju sew ju ne rek mën na maa tax a toog sama biir kër wax xiif di wax moom tarkal la mënuma ko booleeg ay wax ju sew di kontaan ci partenaires yi ñu àndal xalaas seen émission des faits divers euh, ci biir RFM 94 point 0 Mamadou Mamen Ndiaye baal ma baal naa la. baal naa la yàlla may koor jàmm. Mhm. baal naa la bu baax a baax maa ngi lay baalu àq yow it. waaw ah moom ku la war a baalu àq la. Ah, maa ngi lay baalu àq. sama nga ma de. di di nuyu paas. di ko baalu àq maa ngi baal la yow moom dinaa ci xalaat nag. Mhm. waaw pour baal la dinaa ci xalaat. Mhm. fi nga nekk baax na rek <laughs> passe partout ñu ngi lay siyaar. waaw bu baax a baax. Ah. yaa ah. boo jugee delloo ma samay ñaar fukk. <laughs> lan moo bi ngay jugee. <laughs> yaa ko voilà. baal naa la baal naa la ah, na la yàlla may kóorug jàmm <laughs> baal naa la. maa ngi baalu àq senegal gi yëpp di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla mu defal ñu Ababacar ñett yi dafa mat a ñaan ci àdduna. Mm-hmm. suutura. Mm-hmm. wéer ak jàmm. Mm-hmm. mooy àdduna yàlla nañu ko yàlla defal. ñi ko am mu ñu ngi ko defal mu dolli leen ko yàlla mm. yàlla defal sutura defal ñu jàmm defal ñu ak wér may ñu koor gu ñu nangu également yaa nit ci suba trois euh, wóoy yi mënoo koo boole <laughs> war ak wax bu yàggee wóoy ci <laughs> ay ci ana partenaire yi nga xam ne ñoom la ñu àndal Ndiaye sawaay nuyoogul sawaay nuyoo na ba pare de na aba nuyoo na ba pare de nuyoogul kon nuyool ziar naa la ziar aba ziar auditeurs yeeg internet yëpp di nuyu ñu ñuy déglu di jeexal di commencé comme fi ngeen kii rek baalu ñëpp ax abaa ah maa ngi lay baalu àq bu baax. maa ngi la koy baal maa ngi koy baal ci mooj maa ngi lay baalu àq te déwénati képp ku ñu déglu ñu ngi lay baalu àq. waaw ah, dinaa xalaat surtout man nag maa ngi baalu àq ñu bari de. loolu de ñëpp baal. yàlla may kooru jàmm rek. Eh, man damaa def infraction alimentaire. mooy. ruy laa xëddee moo sax daf <laughs> ni notice koor gi de dee ko liir <laughs> njaay koor gi am na njaay koor gi am na am notice mm, boo xam ne la koy bindee ba pare am na man naa fi léegi rek laa gis mais dañoo war di wax ci xëdd yi <laughs> booy bi ma dégg ñu kaas naan ku wax ne ay banaana ko ko xëddee doo xiif nee na nit ñi nañuy wax lu leen leer wax leen lu leen eh, wóor dama gis dama gis ci set saay Babacar Fall waa ji waa ji bind ne. dafa dégg ci yonent bi topp ci yonent bi mu di xëddee ñett. tàndarma mu lay xëddee. dix heures muy miir. <laughs> mu ne barke alamtara kay fa kenn du nabi. ñu kenn du nabi. <laughs> dëgg la de. waaye déet am na loo xamante ne ji ñi ko yàlla may rek la ko may. dëgg la wax ko yàlla may rek la ko may. Ababacar nuyu partenaires yi ñu àndal ci xalaas ñoom it di leen wax déwénati di rafetlu ni ñu àndee boobee ba léegi bokk ci miyoon. Mion mi indi gaamu téléphone yi nga xamante ne ji am na Mion Q11 di jar vingt sept mille Mion Q13 di jar vingt huit mille am beneen téléphone bu ñu naan Mion Haute 3 43 mill lay jar am na Mion Haute 2 boobu gën yomb trente huit mille lay jar. Mion ak gamme bi mu indi am na ay téléphone simple yoo xamante ne ji mill 7000 8000 ba 9000 foofu la toll téléphone yu baax te garanti ñu indi nag ay tablette Aerotab am na boo xamante ne ji 70000 lay jar beneen tablette bu tudd Mi Pad baax te mucc ayib ñu koy jaayee téléphone am yoon tablette am yoon bu ngeen ko bëggee fu ngeen dem ci jaaykatu téléphone yi mën ngeen ko laaj euh, fii ci Sénégal lu aju nak ci service après vente bi nga xamante ne jikkoon mi yoon indi na ko ngir bu ngeen jëndee téléphone am ci dara lu ci sikk ngeen dem ñu xoolal leen ko téléphone yi fàttali ne muy tablette yi di téléphone marque mi yoon bu ñu leen ko jaayee garantie douze mois lañ leen koy defal un an yoo xamante ne ji lu ci sikk rek euh, ñun ñoo ci taxaw numéro téléphone service après vente bi mu yoon 33 la 827 37 96 33 827 37 80. seize beneen partenaire ci xalaas di Optique Vision Plus Sénégal ñi ngi ak promotion bu am solo ci weeru koor wi ñoom waa Optique Vision Plus Sénégal fii ba Korité eh, ay réduction yu am solo ñu ngi leen di xaar ci lunette bu ngeen jënd ci boutique yu Optique Vision Plus Sénégal ci accessoire lunette bu ngeen fa jënd wala ci Euh, cadre lunette bu ngeen fa jënd euh, ay cadre lunette original lunette yu baax te garanti moom la Optique Vision Plus Sénégal indi showroom bi nekk euh, fii ci VDN bi ci presse 2 dend ak hypermarché exclusive ñu am boutique bu nekk Kër Mbay fal beneen boutique bu nekk fële ca Mbour Sari Carrefour en face usine glace am nañu boutique Optique Vision Plus Sénégal bu nekk Touba suñu numéro téléphone 33 821 54 57 Optique Vision Plus Sénégal 33 821 54 57 wala 77 479 63 38 77 479 63 38 Ababacar. am na solo euh, gis nga Ndiaye. Mhm. Euh, ñi communiquer ci koor gi. na mm. nañu xam ni koor as euh, li koy woor. Mm. du full ak fit. da ngay xam ñoo xam ni koor gi man du ma xiif xiif gi du ma sonal miir. xiif gi la yóbbu ci miir yow miir gi ngay seetlu mais xiif gi foo dem fu la kor gi yóbbu rek xiifa la fa yóbbu ñi naan non sama bopp bi metti bi mais xiifa la fa yóbbu ay man noo xiif gi sonal lu ma xiif gi sonal ñëpp <laughs> luy tere nit lekk ak naan nga koy téye mën koo gérer mooy ngor ak jom mais ay dama koo ñeme man koo duma ma sonal damay mara naan rek xiif gi la yóbbu ci mar gi yow il faut nit ñi ànd ak seen xel. nelaw yi sax xiif a ngi ci. <laughs> dëgg la damay nelaw loo conséquence bi kii bi tey yëpp xiif la. dëgg la bi de xiif lay orienté fépp fu ko neex. la leer code bi saa yi génnee léegi. Hmm. looy ndogoo lépp. waaw mais loolu la. wax wax maanaam se segg bi sax la mënatul. yow sonn. Ndiaye looy ndogoo. lépp yow de. leen moytu xëddi ruy daal. waa Cheikh Seck waajee ko fekk mu toog euh, na ko Cheikh naka koor gi mu ne tekk mu baamtuwaat ko <laughs> Cheikh naka koor gi mu ne la laa tontu. ma ko ree la laa lay tontu. bàyyi Cheikh naka ko yow wax <laughs> yow naka koor gi ma taa rek xalaas bi njëkk nga ni euh, lu mu wax nga ni. waaw ah, bu njëkk bi de mooy est xam nga vendredi fii la baan romb dem dem dem pale. fii lañu fii lañu ñu baan romb dem pale. ah bon waaw. loolu xalaas express te di nëbb nag. baan man audience mais monsieur le ah loolu du information nag yow tamit. ah kon maire. du information ci yow nii ah maire autorité de. Hmm. Ah. dëgg ma leneen man nag wax ma leneen yow koor gaa tàmbali yéeg de. Ah. kii Ndiaye. waaw maire commune bu dem Palais. dëgg la de maire Ndiaye ñaata maire fi ne demuñu Palais. ma ni maire autorité la la de. Ndiaye. Hmm. ndaw si doom lay wër. mais nag li ma ci jaaxal mooy Côte d'Ivoire la juddoo. Mhm. fa la ko bàyyi. fa la bàyyi doom waaw. Mhm. bàyyi ko fa de façon volontaire. Mhm. mais ki fa yóbbu woon ba ki mu nekkoon gaaño bàjjanam bi mu gaañoo. ci jëkkër ji bi mu ñibbisi lañ ko nañ demaat nañ ñibbaale Sénégal. mais nag dama dama dama dama dindi turam moom changé voie am parce que jëkkëram bi mu nekkal nii actuellement au Sénégal. expliqué na ko histoire bi. ba xamal na ko ne amoon na doom jamono yi mu nekkee Côte d'Ivoire et Hmm. donc nag boo ko mu ñaan ñu loolu pour ñu dund turam changer voie aussi loolu moo tax ma xaw a laal. léegi moom lan la bëgg doom ji la bëgg a gis. doom ji lay wër waaw. mais Côte d'Ivoire la ko bàyyi. waaw en tout cas joxe na ay ay koñ yu précis ay maanaam yoo xam te ne bu ñu ko ci déggee mën nañ ko identifier ci suñu mbokk Sénégal yi nekk foofu. yaakaar naa William Ville la xam nañ ko déglu daal moom nga dina ko expliquer. nañ déglu. sama doom bi laay wër sama doom bu góor Côte d'Ivoire la ne sama après ñu mujjee Côte d'Ivoire. waaw bu mujjee Côte d'Ivoire après moom da doon jaay restaurant la doon def restaurant ba xamante ne nii da daan togg euh, di jaay restaurant la waaye ci buntu kër gi la daan toog ci laa xamante xale bu góor bi. waa fekk boobu maa ngi am 17 ans ci laa xale bu góor bi bi ma xamante xale bu góor bi nag xale bu góor bi muy ànd di ànd sama sama bàjjan xam ne damay ànd ak moom sama jëkkëru bàjjan ñoom xam nañ maa ngi ànd ak xale bu góor bi ñuy ànd di ànd di ànd si yàgg euh, ëmb sos sama diggante ak moom waaw parce que jamono jooju ñu njëkk William Civil quartier bi nekk biir Abidjan bu tudd William Civil foofu leen dëkkoon xale bi 93 la jur fin 93 la jur xale bu góor bu gaa amuñu woon benn problème waaw accouchement bi yëpp lépp moom moo ko fay sama lekk yëpp moom daf ma ko jox ak xale bi normal amul woon benn problème papa xale bi mu ngi tudd Kogi Lambert sama taaw boobu mu ngi tudd Kogi Adam moom Adam la ko tuddee man nag Adama laa ko tuddee ñu dem ma dem benn bis ñu ànd ma ak moom dem kër magam waaw bu nekk yëpp goon côté boobu yëpp goon cimetière la ñuy wax ndax ak cimetière bi soriwul yëpp goon cimetière la tudd léegi nag jamono jooju mos mosoon a ànd ak moom du foofu te magam boobu noonu muy papay xale bi magam bu góor jamono jooju fekk kooku juge la woon waaye turam laa jàppul fàtte naa turam waaye kuggi la sant waaw ñu ànd foofu dem yendu fa après ñu ñibbisi waaw léegi na yàlla def nag samba jën boobu feebar far gaañu foofu ñu jëlee ma foofu lu yam si biir yóbbu ma ci sama bërëb sama benn këru tonton bu tudd eh, Babacar Sané parce que moom jabar tuggalee la amoon mu ñu dem ma këram ma fa fa xale bi ma nekk fa ma nekk fa ma nekk fa léegi nag sama jëkkër bàjjen tamit bu muy ñibbisi mu ñëw mu ne ma ah man de damaa bëgg rek ñu ñibbisi sa bàjjen gaañu na te man mënuma laa téye fii ñëw ñu dem ma dem jox sa papa ma yaakaar ni su may ñëw ma damay indaale sama doom ñu dem waxtaan ak papa xale bi te yóbbu ma ci dara papa xale bi xëy benn jour rek ñu jël xale bi ci man ñu jël xale bi ci man yóbbu ko quatre ci quatre vingt quatorze boobu noonu fekk xale bi feregul sax xale bi feregul sax mu ñëw di quatre vingt quinze ci quatre vingt quinze bi mu ñëw jël xale bi yóbbu fekk instant yooyu xale bi mu ngi jàng toog mu jël xale bi toog na sax ga mu jël xale bi yóbbu ko ba léegi aw ma benn nouvelle ci xale bi ma benn nouvelle ci papaam man daal sama doom moo ma xalaas. mi ngi noonu Ndiaye euh, doom ji mi ngi tuddi Kogi Adam moom moom Adama la ko tuddee woon mais papa ji moo ko tuddee Adam. góor la wala jigéen. góor la. ok Adam Adam Kogi. Adam Kogi waaw. joxe na filiation yi. koñ ba ñu nekkoon nag fi papa ci dëkkoon nag après bi mu fa jógee koñ ba mu demoon yëpp joxe na ko. ah ñi ñu fan ñu xamante ni ñu ngi ko diwaan dara ñu dimbali ko rek. Ah, dimbali ko contacté ñu ci 77 150 17 17. maa ngi ko dégg rek lu mu wax ne 95 ah, 95. waaw xale bi 94 la judd. 95 hmm. dañ ko séparé ak moom. waaye man nag pour man 77 lay wax 438 95 34. mooy numéro Afrochic moo ñëw sama yére bi ma sol nii moo tax bu ma déggee quatre-vingt-quinze quatre-vingt-quinze ma yaakaar ni ci Afrochic gi la ne. Ndiaye waxal nañ dem xalaas bi waxal Ndiaye yow Ndiaye yow. ci la. ah yow moom yaa ñëw te bopp. Ah, yaa ngi ci ku ñëw. waaw. <laughs> Ah. yal na yàlla nattu ba ngeen xëdde ruuy. <laughs> maa sa wax day néew. waaye ci man fi ne yi ma boolee bari nopp yuy riir. kii Ndiaye xel ko Lambert. Lambert ñu bañ. Eh, eh. koor tey moom bu yeggee ci yàlla dama la ko Ndiaye nee na abaa nuyul ma Youssou Ndour yaa ngi may nuyuloo ku ma dul gis barki yàlla koo xam ne ci at mi benn yoon laa gis barki yàlla ci kaw seen muy wàcc may yéeg wala may muy wàcc. nga tane ma ko man man muy dugg muy génn. fuñ jëm yàlla yàlla defal ko <laughs> jàmm Ndiaye. Mhm. balaa ñu dem am na waay bu ñuy wax Babacar Diouf juddoo Cotonou mais mi ngi dëkk fii Dakar Gueule Tapée transitaire la. ci Cotonou ca Bénin waaw transitaire la am na daal ay ay mbir yuñ ko kii ba démb daal. Mhm. contacté nañ ko. Mhm. bonjour mu bloqué suñu numéro. te nag xam nga aussi tamit comme man damay équilibré rek suñu waxee benn mbir dama koy vérifier. Mhm. contacté naa ko dem ci guddi moom Babacar Diouf dëkk Gueule Tapée te juddoo Cotonou ba ma ko yónnee message salut ci la ma bloqué. débrouillé naa nag ba jël naa élément yëpp envoyé naa ko nag ak beneen numéro donc di ko déglu mais réagir ah kon baax na nañ ko ñu bàyyi tuuti rek pour information bi gën a mën a leer. am na beneen fem bu ma woo bu nekk France. Hmm. Mm, sa numéro laa ko jox xaw ma ndax woowante ngeen. waaw déggante nañu waaw benn prisonnier bu ñu bàyyi woon mu génn. dégg waaw mooy frère am bi ki ki nga xam ne dafa génn barki démb rek commencé menacé waa kër gi. yooyu dama doon expliqué maa ngi koy maa ngi koy tey te xam naa suba nañu ci. incha allah damaa wóor fan fii la Sénégal. commencé di ci euh, wax di xaabaabal ma ne ko comme damaa woor. te boobu ay ay 17h la 18 ma ne ko numéro passe mooy gérer yooyu. mais man na war ngeen maa jox prime prime kii de. bu fekk dama prime ndogu. Mm, mm, mm. <laughs> xam ne dama xam ne Ndiaye bu wax ji bëri nga puus ma ko Abba bu wax ci bëri mu puus ma ko nga ñëw ma encaissé rek mais prime ndogu prime tàndarma bi na ñëw. ma yaa ngi comprendre <laughs> yëpp dina ñëw. d'accord ah. parce que fi may animé. fee ci dëggantaan gi. nga boo jàppee ci Seydina Mohamed sangu-sang yi moom ngay ubbee foo ci paree ñi sopp Seydina Mohamed ñëpp dañuy daanu boo paree dugg ci këru diine yi koo ci euh, laal ki mu yaakaar rek incha allah day daanu loolu lépp duma ko lekk man kese dama koy bokk ak yéen donc yow sa xel na daal yooyu yëpp dina ñëw. ci dëgg loolu alhamdulilah euh, paas xalaas bi. <laughs> alhamdulilah sant yàlla non nañ dem rek moom fu am doon tey moom ñett ñetti woy waaw waaw nañ ko comprendre rek. am na aami tontu mais amul doole ji. fi mu mu may xool ay xool lii kii li ma ko war a wax mais mënu ko wax. parce que ni loolu la marsa am. yàlla rek lan lañ ko <laughs> lan lañ ko def wala moom. Ndiaye su ma paree naan rek yow la. Hmm. Euh, Ndiaye. ambulant buy jaay ci kaw tali bi ay montre yu mille cinq cent ki mille francs bu ponk lu ponklu makum jëmm sañse ba jekki ñëw fekk muy jaay nga dóor ko quatre vingt dix mille moom baa dina desee dara quatre vingt dix mille la ñu dóor ambulant bi waaw ay montre lay jaay waaw waa ji ñëw waxaale ak moom montre ci li mu wax mhm. ba ñu pare waa ko jox ay conseil ci liggéey beeg yooyu moom daal dem waa ji jënd ñaari bouteille yu ndox ba fekk koor ñëwagul nag xam nga férié bi moo tax affaire bu gudd dem jënd ñaari bouteille ndox damay waaj bañ wax sax marque bi mais wax na ko ci kii bi dama ko daal jox ko benn mu naan ku nekk naan benn. ñu mhm. pare lu mu ko laaj ma jox ko ko maanaam xaalisam bu nekkoon bi mu dajoon dugg ko ci kontam dañoo ànd mu retiré ko jox ko ko. am nañu néeg nag. ah Idda ambulant. merci ah, ambulant. xam nga quatre-vingt-dix mille yooyu noonu lim ci daj pour dajale ko. loolu lay wax sax moom. ndax xam nga lim ci wékkoon maanaam lim ci bëggoon a def. lam te xalaatal mbëbët bi yow man xëy am dina metti de trop lekkkat àq yi ñoo bari ci jamono ji mais dina am léegi lu ko ëpp mais mi ngi lance appel nag ci boroomu marchand ambulant bi pour ñu moytu waaw ay ca déglu man marchand ambulant la dafa am benn waaye mu doon quatre vingt mille côté canal car yoon bi jëm université mooy ci côté rond-point bi jëm faas foofu noonu lañ tasee quoi mu woo ma di ma dafa bëgg montor après bi ma woo ne ma dafa bëgg montor ñuy bi ma ko jaayee montor mille baax yu rafet man fi ma jàpp ne que paa bi mooy loolu paa bu baax la ñu ngi jillante noonu nag di waxtaan di waxtaan di waxtaan ba egg ci benn banc quoi ñu toog ci banc bi biñ toogee ci banc bi toog ci banc bi ñuy waxtaan noonu mu di may conseil ay conseil yu rafet man ba léegi jàpp ma ne paa bi moom mooy loolu ndax man nit ku baax laa ko jàpp woon ak yére yim sol ak ni mu comportement woo boo gisee ni ab costume la sol yor ab téléphone XL beneen téléphone bu ndaw yor ab saak sol ay yëre yu rafet man tamit maa ngi jàpp ne paa bi moom ku baax la nii rek ñu toog di waxtaan nii di waxtaan bu yàgg mu génnee ndox ñaari butéel mu daan may jox benn bi jël benn bi quoi moom moom sax moom njëkk naan mu tëj butéelam naan après man si laa tëjee sama bi jël ndox bi ma jox ma naan ko mais ma naanee ndox bi pare nag ci laa mel ne ku taxaliku sama sago nekkatuma mu commencé ay ko xam nag di may commencé di may enquête naan may dangaa yor xaalis foofu boo fekk nag maa ngi yor quatre-vingt-dix mille ndax ci sama weef bi fi laay sama xaalis lu ma liggéey journée bi su ma wàccee damay dem ci sama compte compte weef ma def fa dépôt après mu ma dem ci weef bi fekk na boobu am na benn weef muñ ñu jàkkaarloon foofu ma dem ci weef bi retiré xaalis bi ñëw indi indil ko ko li ma ko joxee ba pare nag ci la demee quoi man ma toog foofu toog naa fa lu ma trente minutes sama xel di soogaay nekkaat après ci laa làmb sama poche bi tëj sama téléphone bi mel na sama xel lépp dem ci xaalis bi quoi ma daal di demaat ma tëj sama compte bi yëpp xool fi gisuma fi xaalis ma daal di si laa yuuxoo paa am na paa bu toogoon foofu suñu wécc quoi si laa yuuxoo paa bi mais paa xamul lan la paa bi tamit faale wu ma quoi ma dem ba ci moom. daal koy laaj ne ko ana ganaar ma toogaloon fii gisoo ko paa bi ne ma grand boobu gisuma ko de ma affaire bi demee heureusement boobu am na ab orange mu ne bitig bu orange nekkoon foofu dafa amoon caméra paa bi daane mu dem ci bitig bee am na caméra ñu xool foofu ba xam caméra bi jëlu ko biñ demee si foofu waa ji anyeer caméra bi mais caméra bi egsiwul yooyu si après si la ma paa bi tamit daan daal di génnee mille cinq cent daan may jox daan ne ma demal ñibbi si laa demee ñibbi ma bëggoon nag waajooju ngir yàlla ko si mën a jàpp rek ndax saar ñooñu kooku xam naa yàgg na koo def du tay ak la ko def ma bëggoon ñu jàlleel ma ko nag si pour sama morom sama mbokki marchand ambulant dégg nga loolu danañ ko def njaay nañ bàyyiwaat seen xel seen euh, li nga xam ne moom la nit ñi moom xeebu ñu yéemuñu mm-hmm. dañoo bëgg lu bon billaahi nañ lu bon dañ koy def marchand ambulant nga xam ne bu xëyee 3000 lay wut. 5000 lay wut vraiment xamoon li mu investir rek li mu quand même. Sénégal da dul sax xam. doo doo mën a comprendre. Oh. da ngay xëy di nekk ci sa bopp nit ñi xëy nekk ci yow. kese nag da ngay xëy nekk ci sa bopp. di xëy na ci avancé nit ñi nekk ci ci sa bopp dégg naa benn benn benn benn benn est-ce sax mu ne mu la nit ñi di sànni xeer dajale xeer tabax ci. waaw wax ju yàqu la. lëng étage déedéet jël ko delloo leen ko. xëy ngay tabaxee boo ko delloo doo egg. xëy ngay tabaxee wutal ko sa bopp. xëyri jàmbur ku ci tabax doo tabax la nga bëgg a tabax dañ koy tojaat de dama lay wax da njaay bu lay sànni xeer ngay ngay fot di delloo waaw doo egg fa nga jëm daje leen xëppaat leen réew mi toll foofu mais da nga dul egg kon baax na loolu loolu la wéykat ba naan nga yi ci kaw garab ñooy sànni xeer saa bu ñu sànni nga wàcc fayu di nga mais seen xeer yañ lay sànni paas bu ñu demee ba xam ni moom nga boole noonu ba mat kër nga tamit ñoo koy ñëw réclamé waat ko <laughs> ñu toj kër gi de xamoo nit ku yàlla nañu yàlla sàmm rek yàlla ñu mën a sàmm yàlla nañu yàlla sàmm paas yéen ci lu am solo kii de dafa mel ni ay mais avant ñuy sori li lay war a sori damay ñaan waaw série euh, sketch yi ñuy teg ci koor gi li mhm. lay war a sori mhm. ne homme de culture nag waaye soriwuma soriwuma ko mhm. mais mooy wax ak yéen ni sénéra ñaane ñu bañ a ñàkk wor ma diine ji ci mm-hmm. sketch yi mm-hmm. ba comédien yëpp di ci góorgóorlu mm-hmm. c'est-à-dire ñaari at a ngi jafe na nga gis ci télé yi waxuma nag internet bi de waxuma yooyu de mais ci télé yi ñuy def sketch corps di sàllawlu diine di xotti wor may diine moom gisatuñu ko mais saaga yi nañ ci dimbale ci koor gi waaw seetlu naa léegi série sénégal yi sketch yi saaga da leen yomb torop dañu koy euh, nañ ko bàyyeek acteurs yi même fekkee jaaduwul nañ ko bàyyeeg mannequin yeeg mais ñoom comédiens yi mm-hmm. xam ne ay éducateurs lañu mm-hmm. am lu ñu xam ci ñoom un mm-hmm. comédien peut tey mën na nekk docteur suba mu interpréter rôle dof ginnaaw suba mu interpréter rôle immigré. pare ci ñoom la xale yi sax di. voilà ñoom bu ñu dugg ci gaam boobu noonu. seetaan naa keroog benn du ma tudd kii. mais ay saaga yi dul jeex. nañ ñu ci dimbali surtout ci weeru koor mm-hmm. te nañu xam ne li ñuy def mag ñee ko gën a sopp mm-hmm. xale yi dañ parce que jamono jooju xale yi taluñu toog ci télé yi di seetaan mag yi ñooy toog ci télé yi di préparer ndogu li lay war a mm-hmm. soli nañ ñu dimbali ci saaga yi nit booy roy da ngay roy lu baax effectivement mais sax mën na sax neex te du am saaga. dafa waru ci am sax vulgaire quand même la mais ay ay saaga yoo xamante ne jii xame et puis ñu ko woon rek ñoo ciy dugg. nañu ko rafetal parce que tey bu ñu ci ëppalee surtout kuréel yi comme Sénéra jugaat waxaat ñu ne noonu dañ leen di xeexaat fekk ñoom ñooy tooñ fam loo xam boo ko seetaanee fa muy egg doo ko mën a maîtriser nga dab ko balaa muy dem mais saaga mhm. yeeg wax yu ñaawi daal ci sketch koor moom mën naa ñàkk da ngay dem toog noppalu wax mën na benn laaj seetaan te maa koy produire la de chargé de chargé de am nga fulla de ah? am nga fulla de ah <laughs> maa koy produire sama tur ma ci biir mi ngay bind ci télé bi <laughs> fu muy daw RTS <laughs> pour man ORTB lay daw RTS lay daw man télé Burkina Burkina Faso lay daw. <laughs> loolu euh, émission waaw euh, Njaay kii la <laughs> euh, dañuy waxtaan rek ci ah, koor gi wax ni ñuy ndogoog nan la ñu war a wóor ak yooyu yëpp lan lay wax foofu. Ah. yow kii kii ci lu mu nekk nii. billet noir gu metti mais Njaay billet la Njaay ki dañ koo dóor te ci billet noir lañ ko jaarale. li ci nekk ñëpp dañ leen dóor. billet noir mooy ay faux billet yooyu. waaw. billet noir foofu coow li temps yi la ci mbirum raxas boobu ah merci. waa ji ñëw nañ gëmloo ko ni ko dañoo yore ñaari paquet billet noir benn bu cent benn bu cent cinquante millions. Euh. dañ koy raxas produit bi deux million et quelque lay jaar. Hmm. mooy dañ koy raxase. waaw suñ ko raxasee. kii bi mooy seen produit. mooy liquide bi ñuy wax rek. tudd mercure bi. mercure bi. <laughs> Ah, boo yéen ngeen ci de. Ah, waaw ma takku ma ci de. da ngeen koo ñeme de. information yi waaye Ndiaye waa ji daal xool. dugal nañ ko ci xam nga dañ leen nax nag ñëw raxas benn mhm. échantillon mu seet mhm. nga dem jaay ñun la bi xaalis bu baax la fekk dañuy jël xaalis bu baax ñoom masqué ko noonu mhm. bu ñu ñëwee raxas ko sa kanam na la échantillon produit baa ngi nii vingt cinq léegi nag produit bi raxas li yëpp trois millions wala quatre millions lay jar xam nga da ngay wóolu jël trois millions dugal produit pour raxas bi loolu ma waa ji woowoon Ndiaye woowoon nañ ma <laughs> ma ko waaw waa ji allo waaw raxas ko kii ah man ma juddoo yëmbal màggee fa papa ak yaay yoruñu dara ma làmb samay poos njaay fekk ci trois mille lu ko yow may ma dundee lii <laughs> lu ma yor doy na ma yow wér nga lu may raxas lan laay raxas lan ak lan laa koy dee. ba ma jugee Canada wuti visa. may mayuñu ma ñëw ci buntu rajo fekk fi waa ji mu ne a gis nga dañ maa rejeté. dëgg <laughs> gi nga xamante ne dem naa fa demaat fa dañ maa rejeté. gi yoon ndeysaan moo gën a wóor. ndeysaan lu waay yor di jooy rek. Ah. am na ku ko yor ree. nañu muñ tekk ah waa ji nee na kenn ku xeebul sa noos. kenn dàqu la ku xeebul sa nguur. kenn kenn gënu la neex. doon buur dëgg la de ku xeebul sa nguur doon nguur. mu jeex tàkk tàkk nii bi la léegi da ngay dugg premier parti waa ji. ay parti la. waaw yii dañoo fooy bu koor gi nag moom. mu jaar jaar la foog mu jaar ba bañ koy dóor maanaam fi ñu ko jaarale te kii kat xoolal ay gendarme ak lépp la ngi ci biir de. nañ déglu déglu premier parti bi. xamanteeloon boo xam ne dafa xamante benn gendarme gendarme bi xamante ak beneen copain bu ñuy wax Mamadou Kandé bu nekk Dakar genre pa la nii léegi gendarme bi dafa wax ne ci li ma wax man dafa wax ne dafa amoon soxla quoi parce que ni nga xamante paa bi mooy dafa woon benn guddi paa bi pan mu ñëw dimbali ko léegi après ci noonu leen xamante paa bi saa bu rombee foofu noonu des fois mu jox ko ay ay cinq mille na ko jënd ci gaz wala wala yooyu noonu am na xaalis ko pape moom noonu mook pape ñoo xamante ba mu defaral pape ba pape euh, parce que pape clim lay liggéey léegi nag samedi bi dafa ñëw sama place bi mu ñëwee xam ne téléphone dafa yàqu ma jaay ko téléphone bi ma ko jaay téléphone ba pare mun ma am na lu mu la war a expliquer ma a ko lan la mu ne oto yi mu jëlee Gambie dugal Sénégal da cee fat da ñaari carton yoo xam ne benn bi dañ cee bind cent cinquante millions mu daaj ko fekk mu nekk ay billets yu noir xamul lan la am na benn benn frère boo xam ne Dakar la nekk benn nijaayam sax la ma wax boo xam ne Dakar la nekk mais moom ne kooku connaisseur la mu koy ba ci moom kii ne ko lii xaalis billet ministère yi ñoo leen di rawale wala dëkk bu am guerre ñu koy rawale ñuural ko léegi nag xaalis bu baax la mais dañ ko dañ koy raxas dafa am liquide bu koy raxas liquide bu nag moom na mu waxaale laa bëgg a dem Dakar nii jënd ji pour dóor affaire ma ko Pape loolu mbaa wóor na léegi ñooñu boo demee ñu jaay la lu baaxul nag te loolu bu la jaay lu baax mënoo ko topp fenn mënu ma ñooñu li li ñu jaay baax nañ parce que loolu mooy seen liggéey ñoom ñëmoo ñoo def lool ma ne ko ah mun waaw mun nañ dem rek yow nga xool nañ dem nga xool ma ne ko baax nañu dem bu ñu demee ba ak ñu dajee nijaayam boobu muy wax Kër Massar ci rond point bi bi ñu ci rond bi ñu dugg ci oto bi sa waay daal génn carton bi benn carton daan dem ko pap mi ngi nii daal affaire bi daal ba léegi maa ngi ko denc aw ma solution